mi ngi leen di gërëm ci dikk bi ngeen fi dikk ci dikk bi ngeen fi dikk li fi génn mu néew mu bari li fi génn mu néew ak mu bari ñun ñëpp yal na yàlla defal kàttan ci jëriñoo ñun ñëpp yal na yàlla defal kàttan ci jëriñoo lépp loo xam ne li ay rëcc rëcc la woon yu nekk suñu digganteeg suñu borom yàlla nañ ko yàlla jéggal lépp loo xam ne li ay rëcc rëcc la woon yu ne woon suñu digganteeg suñu borom yal na ko yàlla jéggal su dee ay tooñante yu nekk suñu diggante te mënuñu ko baalante yal na ko yàlla génn su dee ay tooñante yu nekk suñu diggante bopp te mënuñu ko baalante yal na ko yàlla génn ci ci mag si ngeen lam nga fayal na ko te mu bañ ko jël suñu xasanaat ci daraja yonent bi yal na yàlla guddal fan yal na yàlla guddal fan yi yal na yàlla wéral yaram na yàlla wéral yaram yi feebar bu bari bi si réew mi feebar bu bari bi ci réew na ko yàlla saafara yal na ko yàlla saafara docteur yi faj docteur yi faj yal na yàlla def barki yal na seen loxo ba ku ñu faj ba ku ñu faj nga wér garab yi garab yi yàlla def def ci barke ñi koy jaay ñi koy jaay muy pharmacien muy pharmacien yi yal na ci yàlla def barke docteur yi faj docteur yi faj yal na yàlla yal na yàlla bind wér wér ci seen i loxo seen i loxo ak jàmm ak jàmm ci dara ju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ni ki nguur gi fonctionnaire bi fonctionnaire yi yëpp yëpp yal na ci yàlla def yal na ci yàlla def barke commerce bi commerce bi yal na ci yàlla def barke mbay mi mbay mi yal na ci yàlla def barke yal na ci yàlla def barke pauvre yooyu yal na ci yàlla def barke ñëpp métier ñëpp métier moo xam moo xam ni waaye nga ko waaye nga ko amee di ca tedd di ca tedd di ca terle di ca terle di ca faj aajoom faj aajoom ak aajoy bokkam ak aajoy bokkam yal na ko ci yàlla saxal yàlla ko ci yàlla saxal te defal ko ca barke ci dara ju yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam képp fu ci waay nekk fépp ci waay nekk nekk fa ak say kilifa nekk yal na la yàlla dimbali yal na la yàlla dimbali dëppale la dëppale la ak say ak kilifa ba ngeen nekk benn ngeen nekk benn ngeen juboo ngeen juboo mu def jàmm mu def jàmm ci réew mi ci réew def ci boole xol boole xol ba ni ñu bëgg ba ni ñu bëggee Sénégal doxe Sénégal ko mu doxe mu doxe wërsëg yu yokk wërsëg yu yokk naataange gi yokk yokk bekkoor dàqu bekkoor dàqu wéra di dàqu wéra di dàqu tële dàqu tële dàqu yal na ko fi yàlla yal yàlla te wàcc fi te wàcc fi wépp yiw. ci daraja yonent bi ci daraja yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. kilifa yi fi nekk. kilifa yi diine yi fi nekk. li ñu bëgg yal na ko yàlla defal. li ñu bëgg yal leen yàlla defal. te teg leen ci siraatal mustaqim. te teg leen ci siraatal mustaqim. ndax ñi leen yaakaar topp ci seen gannaaw ñoom it ñu jub. ndax ñi leen yaakaar topp ci seen gannaaw ndax ñu jub. yal na yàlla jubal ñi ñu topp yal na yàlla jubal ñi ñu topp ñu topp it yal na leen yàlla jubal yal na leen yàlla jubal su leen jubalee jubal ñu topp jubal ñu topp jubale leen jubale leen seen bopp ci daraja ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk adduna bi ñoom la yàlla dénk adduna bi ñoom it ñoom it yal na leen yàlla dimbali yal na leen yàlla dimbali jubale leen jubale leen ñu nekk benn ñu nekk benn tey tey am na loo xam ne lii ci réew mi laa bokk am na loo xam ne lii dee ci réew mi la bokk ni ko ko ñëpp di yëge di ko xamee noonu laa koy xamee ni ko ko ñëpp di yëge di ko ko xamee noonu la koy xamee waxoon na ca Dakar waxoon na ca Dakar ne tànk Sénégal ne tànk Sénégal ci position bii rek la nekk ci position bii rek la nekk dafay arriéré rek day arriéré rek réew moo xam ne réew moo xam xam-xam bariwu fa alal bariwu fa alal bariwu fa xol yu jubóowul xol yooyu jubóowul lu yàgg yàgg lu yàgg yàgg day dellu gannaaw day dellu gannaaw rek loola mooy lan loola mooy lan ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg am nañu ayib boo xam ne am nañu ayib boo xam ne war nañu góorgóorlu bàyyi ko càll war nañoo góorgóorlu bàyyi ko càllam booleente booleente fekk sa mbokk ci place fekk sa mbokk ci place muy teraangaam muy teraangaam ngay dox ak di wax dox ak di wax di sabablu di sabablu ba ñu dàq ba ñu dàq loolu dara loolu dara yi te bari na fi te bari na fi kat ñëpp it xam na loolu ñëpp it xam na loolu booleente bi. booleente bi. nañu ko nañu ko bay. kilifa yi kilifa yi. nañu saañ seen nopp nañu saañ seen i nopp. nañu saañ seen i nopp nañu saañ seen kilifa kilifa. dafa war a amee dafa war a amee. melaw silmaxa melaw silmaxa. warul xool warul xool. su xoolee xoolee. gis ayib gis ayib. warul déglu warul déglu su dégloo su dégloo. déglu ba déglu kon ma warul wax warul wax. koo xam ne koo xam ne soo waxee benn baat soo yokk ñu yokk ko. ba muy téeméer bala ngaa wax bala war nga seet li ngay wax li ngay wax fi ngay waxee ci ngay wax. loolu kilifay diine yi kilifay adduna yi yëpp ko bokk. loolu nag kilifay diine yi ak kilifay adduna yi yëpp ko bokk. sallallahu alayhi wa sallam. nee na sallallahu alayhi wa sallam. sunu borom daf ko ne ko. sunu borom daf ko ne ko. fa bima rahmatin min allahi ay fa bi sababi rahmatin min allahi linta lahu walaw kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ba ca des mu ne ko xudil afwa wamur bil urfi wa arid anil jahilin dafa ne ko ndagam am nga nooy it yàlla Muhammad ndagam am nga nooy yàllaa la baaxee jox la ko rek. yàllaa la baaxe jox la ko. ndax su fekkoon ne da di borom jikko ju ñaaw. ndax su fekkoon da nga di borom jikko ju ñaaw. di jikko ju tal. di jikko ju tal. sa tal. sa xol tal. ba doo nangu dara. ba doo nangu dara. kon kon it lan faddu min xawlika ñu wàcc la fi te dellu si ci man maa ngi kon lan faddu min xawlika nit ñi dañ la fi wàcc te dellu si ci man mi leen bindoon li gën li gën faafu anhum ne faafu anhum jéggal leen jéggal leen ci lu nekk sa diggante ci lu nekk sa diggante ñoom wastaghfir lahum ne wastaghfir lahum jéggalul leen jéggalul leen ci lu nekk sama diggante ñoom sama diggante ñoom wa shaawiruhum fil amri wa shaawiruhum fil amri bala ngaa def dara bala ngaa def dara diisoo ko ñoom ñu ne waaw ñu ne waaw ñu ni waaw moo naka yàllay waxe rasulullah naan ko diisool ak ñi la topp nee na naka la ñuy waxee naka yàllay waxee ni rasulullah diisool ak ñi la topp te sudul moom xel sudul woon xelam ma yàlla te sudul woon xelam moom Muhammad yàlla du bind mennum xel gaañu soowoo foofu gaañu soowoo foofu ñu ne déet leen ñu ne déet leen diisoo ga kat diisoo ga kat pour wàllu adduna la pour wàllu adduna la waaye wàllu laaxira waaye wàllu laaxira fil direct la mais fil direct la ci diggante ba borom soxlawul mu diisoo soxlawul mu diisoo waaye ñu ne ba tey ñu ne ba tey am xelama manqué am xelama manqué wala déet wala déet ñu ne déedéet ñu ne déedéet lan la tax yàlla def tax yàlla def ko dafa bëgg dafa bëgg ñuy ñëw gannaaw yonent ñëw gannaaw yonent bi te di kilifa te di kilifa nekk ci kanamu nit ñi nekk ci kanamu nit ñi ñuy diisoo ñuy a doyloo bañ a seenum xel ndax léegi suru ndax léegi suru wala seen bi yàq ñu ne déedéet ñu ne déedéet yonent bi yonent bi ñi ko toppoon ñi ko toppoon ñaari xaaj lañ ñaari xaaj lañ ñaam daraja ñaam daraja ak ñu ko amul ak ñi ko amul ñaam alal ñaam alal ak ñu ko amul ko amul su fekkee ne su fekkee ne dafay dugg ci néegam dugg ci néegam woo borom daraja woo borom daraja ñi amul daraja ñi amul daraja danañu wax ne danañu wax ne yonent bi yonent bi daf ñu xeeb daf ñu xeeb ñi amul alal amul alal ne ni daf ñu xeeb daf ndax bàyyi nañu ndax bàyyi nañu woo borom alal woo borom yi ñu ne ko kon nag maasale lépp ñu ko kon nag maasale lépp su dara desulee lu dul nas ngeen seeni nas ba noppi. su dara desul nag lu dul ngeen seeni nas nag ba noppi. dara desul lu dul doxal. dara desul lu dul doxal nag. da nga fiy bàyyi sa pexe. da nga fiy bàyyi pexe. bàyyi seeni pexe bàyyi seeni pexe. sukkandiku ci man. sukkandiku ci man ma wéyal mbir ma ma wéyal mbir <laughs> kon nag. mais kon nag. wow melo. wow melo. ñëpp war nañ ko am. ñëpp war nañ ko am. nañu góor góorlu. nañu góor góorlu. bàyyi booleente bi. bàyyi booleente bi. fu ci nit nekkati. fu ci nit nekk di doomu réew mi di doomu réew mi di mbokk di mboq amee fa teranga amee fa ñu fexe ba mu ba mu sax moo gën moo gën waaye suñu indee médecin waaye suñu indee médecin bala fee ñu xeex ñu ko ñu jële ko ñu jële ko su commandant ñëwee commandant ñëwee balaa yàgg ñu xeex ko ñu mu jëf mu jëf ko su commissaire ñëwee balaa yàgg balaa yàgg ñu xeex ñu xeex ko mu jëf ko mu jëf ko su gouverneur ñëwee balaa yàgg balaa yàgg ñu xeex ñu xeex ko mu jëf mu jëf ko su fonctionnaire ñëwee balaa yàgg xeex ñu xeex ko mu jëf mu jëf chef de poste ñu xeex ñu mu jëf mu jëf kañ la réew di taxaw ne dañuy taxaw. koo xam ne ki foo jëmbat balaa ëllëg nga buddi yóbbu feneen. nee koo xam ne foo jëmbat balaa ëllëg nga buddi yóbbu feneen. te xam ne suuf yi bi ci xorom ak bi ci baax suuf yi bi ci xorom nangu jëmbat ak bi ko ci nangu. léegi sa njëmbat yàq léegi sa njëmbat deekat. na ngeen ci góorgóorlu. nee yooyu na ngeen ci góorgóorlu. nee na Ousmane Cissé ak Doudou Ndiaye. ak ñi ñu àndal ak ñi ngeen àndal. maa ngi leen di gërëm. nee mi ngi leen di gërëm. ci mbir mi ngeen ñu defal. ci mbir mi ngeen leen defal. rëy na ci ñun. nee na rëy na ci ñoom. ci àdduna yëpp ngeen ko defal. àdduna yëpp ngeen ko defal. ndax lii ñu fi wax. ndax lii ñu fi wax. njëriñ la loo xam ne njëriñ la loo xam ne. ñëpp danañ ko déglu. ñëpp danañ ko déglu. te danañ ci kontaan. te danañ ci kontaan. maa ngi leen di ñaan nag. nee mi ngi leen di ñaan nag. ci gannaaw bi nga xamee ni man sant naa leen yéen ñi ñëw ci gannaaw bi nga na leen yéen ñi ñëw gërëm leen gërëm leen su leen yàlla yóbboo su leen yàlla yóbboo ngeen jotalal ma sama ngërëm ci kilifa gi nga xam ne mooy seen ministre ngeen jotalal ko ngërëmam ci kilifa gi nga xam ne gii moo di seen ministre ci nangu gi mu nangu ak ni mu doxali mbir mi ci nangu gi mu nangu ni mu doxali mbir mi ak na mu ko rafetale di santit kilifa gi topp ci moom te ngeen xam ne ci sous ordre am ngeen. di sant kilifa gi topp ci moom te ngeen nekk suuf ordre am. ni ki Patrice. ni ki muy Patrice Diouf. ak ña ngeen bokkal mbir ak ña ngeen bokkal métti meeg mbir ma. lii rëy na ci ñoom lii rëy na lool. te ñun famille bi yëpp. ñu ngi leen di sant bi yëpp ñu ngi leen di sant. ci sonorisation bi ni ngeen ko defee. léegi ñu ngeen defaree sonorisation bi. ak installation bi ak installation bi. kontaan nañu bu baax kontaan nañu bu baax. yal na leen yàlla saxal yal na leen yàlla saxal. defal leen sutura defal leen sutura. defal leen ca barke leen ci lu baax. lépp lu ngeen ragal yal lu ngeen ragal. yàlla musal leen yàlla musal lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg. yàlla defal leen yàlla defal leen. te seen mbir mi te seen mi. yal na gën a jëm kaw yal na gën a jëm kaw. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam